noonu la amee ci fii barki dem ñu takkal fi benn jigéen wujju mu daal di rajaxe këram yëpp xaw ma na ci am wax nag ay ca mbokk yi ni nu leen ko waxee bi ñuy jël euh, ajaratu ndey kumba ngeen dégg li mu wax macha allah mais nag euh, mu ñu nekk ci sëy tollu ci sëy muy conseiller xale yi ci sëy ni nu war a toogee doomam dugg si sumbulu. mu mu mel ni dafa dafa firndeel li mu doon wax ndax yàlla dogal na bi mu ci ba tey mi ngi ci toog dara xewul mu la mu raar ci actrice comme moom dara xewul yaay looy àggale ak sa doom. xam nga macha allah ma nuyu doom ji mag di la bu baax nag macha allah di kontaan ci yow. yónnee ma macha allah bàcc li buur nga dem. ba tax la lu tax macha allah maa la jur. Ah, yow maa jur te yaay di jur ku bon masa kurni masa ganda ma ko kilay jamu fula keneen bokk li bali koo dikko waaw li to boo defee noonu tamit jigéen ñi dañoo xaw a sax est-ce que dinañ duñu jur doom muy bañ a sëy ñun duñu jur doom muy bañ a sëy kii bu sëyul bal tàq ci kawam problème am bu doon Coulibaly la kii bu tàq bu doon Coulibaly ak Ségou Ka bu sëyul ñoo ñëw taxaw rek li bëree bëri dama neen kii day sëy ba naani géej kii daa def formation ci ndey ko mën la ko koy tànnal ba formation ci moom ak la mu duwee ca yaayam day sëy ba génn télé day sëy ba seng yi naaw kii du bougé du dem xanaa dégg nga li ma wax bu baax a baax xanaa li ma wax baaje ñu ngi lay wax waaw wax ji bëri bëri lool ak bàjjen boo sax mën na kaa man leen xoolal kii kaay dangaa def lu baax toogal bul yàkkamti xam nga ndax ma wax la lii gis kii dañoo bokk ak moom tournage mu ñëw mu yaayam mu ñëw nag nekk sama doom waaye yàlla yaayam di sama mag mu ñëw rek nekk xale lool gis nga bu fayee ko ba pare. ñun ñu fay ñu cachet. day jël cachet bi séddale ñu ko maag Binta Samb. la ba. soloy la maa la wax li daf may xool ba si yàgg mu ne ma yaay kii dafa gëpp kii fekk ma ne ku tëdd maa bari ay feem nag. mu daan ne ma daa bànkati rek kii xool ko mu toog dafa bànkati su bi postam jox ma lu bari ku la xaar yal na bàcc xaal bi yow xale bu baax nga te nag gis nga xaar. maa bëgg ci moom man ma si goro boobu maa ko bëgg <laughs> maa sa yaay li mu seede loo ciy sant yàlla sama yaay ji dafa baax loolu ñëpp xam nañ ko moom day di seex la moom jaaxal naa la tëdd dafa bëgg ñëpp moo tax ñëpp a ko bëgg tey bu ngi nekk euh, fii ak ñoom daaro def leen comme ni ma def ku nekk nekkal noonu la lay def sant yàlla alhamdulilah yàlla ko yàlla bàyyi suñu kanam mu mu gunge ñu ba ci kanam. mais